mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci dajewaat ci ab néegam di fas yéene jël ab bind ci ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam doon ñu ci bégal ca la ca dajale ci ay xéewal xéewal yooyu yépp yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko am na ñu tasaaroo ci àdduna bi it yàlla dogal ñu mën caa jot ñooñee nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom na doon suñu télévision bi di Islam TV wala site xam sa diine ya xam islam point com ak site yi aju ci jàkka ji yépp ñu ngi ñaan yàlla boole ñoo ñoom ci ñi nga xam ne dañuy jottali kàddug yàlla cam nangul leen ko ñu ngi nekkoon suratul hadid ba war a jël tey aaya ñaar fukki bi ak ñaar ci suñu borom di waxee ni ma asaaba min musibatin fi l ard ñu ngi noonu suratul hadid aaya ñaar fukki ak ñaar ci page cinq cent quarante bi tey jii moom mooy la nga xamee ne nii àllarba di nekk fukki fan ak juróom-ñeent ca la nga xamee ne nii mooy weeru janvier deux mille vingt trois deux mille vingt deux non di tombeek juróom-ñeenteelu non fukkeelu fan ba ak lan ak juróom-benn ci la nga xamee ne nii mooy jumada saniya ci mille quatre cent quarante trois incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom dani ma asaba min musibatin du dal mukk lenn ci ab nattu di musiba fil ardi wala fi anfusikum na doon ci suuf la wala ci seen bakkan yi illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha lu dul nekkoon na ci téere jiitu ñuy bind mooy di sos mbind jëf jooje mi ngi noon naxluqaha inna zalika ala allahi yasir loolee day dafa nekk lu yomb ci yàlla likay la tasaw ala ma faatakum ngire ngeen di bañ a ànd ak tiis ca la nga xamee ni nii da leen rëcc waaye wala tafraxu bi ma aataakum ngeen bañ a nekk di bége bégug bew ci loo xam ne nii da leen koo dikke wallahu la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur yàlla day bëggul képp koo xam ne daa yëg boppam nekkari di puukariwu ci kaw jaam yi allazina yabxaluuna wa ya'muruuna annaasa bil buxl mooy ñooñu nga xam ne dañuy nay ba pare di digal nit ñi ñu nay wa man yatawalla koo xam ne ni nag daa dudd wane gannaaw fa inna allaha huwa alganiyul hamid sa borom yàlla mooy ki woom leki mooy ka nga xam ne mooy alhamid ki yeyoo cant yépp doonte ne alhamid it mooy kiy sant sant gu amul app jaamam ya ka yeyoo mi ngi noonu mbokk julit diine ji ñuy dund da ngay xam daa am ay pilier pilier yooyee yenn yi pilier lu ñu war a gëm la ak pilier yu ñu war a jëfe bu dee yi ñu war a gëm juróom benn la mooy nga gëm yàlla wéetal ko gëm la nga xam ne mooy ay malaakaam gëm la nga xamee ni nii moom mooy ay téeréem gëm la nga xam ne mooy ay yonentam gëm la nga xam ne mooy yowmal qiyaama waaye gëmit la nga xam ne mooy dogal lan mooy dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla avant muy bind asamaan yi ak suuf bindoon na lépp lu fiy nar a xew ba baa bis penc di taxaw ci diiru juróom fukki junni at avant muy commencé asamaan ak suuf bindoon na lépp loole la jullit war a gëm borom boobu jalla wa ala nee na moo yor caabi kumpa moom rek moo ko xam indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fi al-barri wal-bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumati al-ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin borom bi mi ngi ñooy xamal ni amul luy xew ci océan yi luy xew ci suuf si amul benn xobu garab buy wadd amul benn pepp dugub boo ñuy dugal ci biir suuf lu dul lépp yàlla bindoon na kañ la war a dugg ci suuf kañ la war a màgg pepp boobee ñaata la war a génn ci ay pepp lan mooy dundam lan mooy deeyam loolu moo am ci bàyyima yi moo am ci lépp lu mën a doon loole jullit da ko war a gëm su doon sunu maam yi ak ñun ñëpp dañu xalaat téere boobu yàlla bind moom yaatuwaayam nu mu toll doonte ne dañuy wax wallahu aalam yàlla won nañu loo xam ne nii doon na kawtéef ci ñun waxuma suñuy maam xale yi nga xam ne xam nañu tey mën nga am benn clé boo xam ne gennollu baaram rek lay duré carte mémoire ba ca nekk day lay la cay mémoire ba ci biir clé ba day toll ni awwe ca mën a jël lu jege cinq cent giga nga xam ne mën ngaa wax téeméeri junni yi téere mën nañ ko cee dugal ci loo xam ne nii nii la toll loolu doomu aadama créé na ko tey lu ñu nar a créé dans dix ans dans cent ans wallahu alam ala kulli xaal jurit loolu ngay gëm yàlla bind na lépp loolee muy won ni yàlla xam na lépp lu nar a xew te loolu jullit moom ngay gëm yàlla moom it moo dogal lépp lu nar a am léegi nag mu ne wax naa leen lii ngiree bu dee nattu dafa dal ci seen kaw mu dal ci suuf si tool ya yàqu na mi ngi noonu oto ya yàqu na mu dal ca bakkan ya doom dee na soxna dee na loxo dagg na bët yàqu na ila axiri loolu lépp xamal ne yàlla dogaloon ne bis sàngam lay am waxtu sàngam lay am place sàngam lay am kon lan moo des ci jullit bu ko nattu dalee mu wax lan jurit li muy wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun de yàlla moo ñu moom mooy dogal ci ñun lu ko neex ay jaamam lañu mooy dogal ci ñun lu ko neex te ci moom la ñuy dellu dogal bi mu dogal buñ ko muñee muñ ko rafet pay yéen cay xaar kenn xamul nu mu toll looloo tax yonent bi alayhi salaam daan wax ak yéeme mbiri jullit mbirit jullit moom léppam yiw la ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr jullit lu ko daal rek yiw la wa côté ba tàkk na yiw la kër ga màbb na yiw la loxo ba dagg na yiw la lu tax ndax heure boo xamee ni nii xéewal da koo dal day sant yàlla mu wëlbati ko xéewal ci kaw xéewal bu ko nattu dalee mu muñ ko muñ ko rafet yàlla fay ko te loo xam ne moo gën a màgg natt ba mu ko teg mi ngi noonu dañu ne ci li kenn ci màggatu jigéen arab yi am na lu mu doon def rek baaraam bën a tëf dagg mu xool baaraam bi muñ ñu nekk lu na ko yow yaa ngi ñuy jaaxal sa baaraam bi dagg ne ngay muñ mu ne sama xel dina yar ci pay ga ca yàlla digle moom ma fàttaloo méttitu daggatu baaraam bi loolee mbokk moo tax yonent bi alayhi salaam comme daan jaale wala mu koy dalal ci natt bi ko dal daf ko doon wax naan fa inna lillahi ma axaza wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib xamal ni yàlla lim la teg ci nattu moo ko moomoon bu dee alal la jum jël wala wér gum jël wala njaboot gum jël du moo ko moom moo moom lim lim jël moo moom lim fi bàyyi lu nekk otuloon na ko ab dig li ci des mooy muñal te yaakaar pay ci yàlla wal tasbir wal tahtasib loolee mbokk la ab julit war a gëm looloo tax échec ca ca ca examen ba échec ca tukki ba échec ca loolu du déranger julit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaan yàlla yow mi ma teg lii yàlla na nga ko def xiiwal ci man adduna ak àllaaxira loolu mooy benn partie bi deuxième partie bi mooy yàlla mu ne ngeen bañ a bewe li leen yàlla jox mbokk alal ji yàlla la ko jox de wallahi xoolal li nga am ci wërsëg nit ëpp na lay diplôme ëpp la doole di la jëkk a xëy di la jëkk a wàcc ca amul un centième ba lu la yàlla dikk ci xam-xam am na ku la gën a bëgg xam-xam gën la caa sonn amu ko lu la yàlla nattoo ci nguur naka noonu su ko defee yow jullit da ngay xam ne loo am ci xéewal yàlla la ko jox doo ca bàkku doo ca puukarewu loolu tax borom bi mu ne bëggul muxtaal mooy koo xam ne yëg na boppam ne moom du moroomu gaa yi muy feeñ ci ay ay jëfam loolu suñu borom mu ne bëgg ko faxuur nag mooy gën a bon te mooy utiliser làmmiñam di xeeb nit ñi di wax ci ñoom lu nekk te loolu it ak a bëri dana waay boo xam ne yàlla da koy génne ci famille ba doola xëy xëy rek fullal ko moom alal mu xeeb leen ñoom ñëpp jàpp na ay mbaam la ñu léegi moom mooy wuratu la toog ak ñoom dul dem seen kër amul ak ñoom benn rapport boo xam ne da koy siq ak ñoom mbokk loolu mooy muxtaal faxuur yàlla subhanahu wa taala bëggul loolu ndax yàlla muy may mi ngi noonu borom bi mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy nay di digal ñeneen ñi ñu nay ca mooy noonu ñu xeebi nit ñi dañuy jàpp ne yeeyewuñ ñu jël alal di leen ko jox ku ñu gis nawleem buy def loolu it ñu ne ko waay yow bàyyi ñii waay ñi dañoo ñàkk fayda wala ñu liggéey il faut ñu nangam kaza wa kaza loolee mbokk muy li gën a bon ci nit ñi mbon rek doy na li la yàlla wërsëgal àqu nit ñi joxoo leen ko ca da doon loolu alal la xam-xam la pouvoir la lépp lu mën a doon mbokk yàlla la ko jox nga war cee jox àqu nit ñi yonent bi alayhi salaam nee na albaxiil man zukurtu indahu walam yusalli alayya nee na ki nay bokk na ca sax nga dégg turu yonent yàlla muhammad ba pare julli woo ci moom kon nay mooy bépp àq boo war a joxe joxoo ko rek yow da ngaa nay ba pare di ko di ko digal keneen nag loolee mbokk muy safaanu julit julit moom la borom bi na wax ne laa xayra fi kasirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islahin bayna nas yàlla mu ne lu ëpp seen daje yi ni ñuy daje amul benn njëriñ xanaa lu dul koo xam ne dafa daje di ñaaxaate pour ñu dimbali keneen pour ñu yéwénal ab diggante pour ñu def lu baax ñooñee mbokk ñooy contraire yabxaluuna wa ya'muruuna naas bil buxl borom boobu nag subhanahu wa taala ne koo xam ne da ngaa dëdd wane gannaaw yàlla moom muy alxani suñu borom yàlla mooy alxani julit loolu nga war a gëm am na wax ju ñaaw joo xam ne ñi ngi koy wax mi ngi ci internet bi ba léegi yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee daa perte mbokk loolu loolu wax wax yi musiba la rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom yàlla nee na ay yéen law insakum wa jinnakum kaanu ala qalbi rajulin wahid ila axiri alhadis bu doon te ne nit ak jinne yëpp dañoo daje woon ci xolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñépp mel na muhammad yokkul sama ngóor gi misqaala zarra bu yéen ñëpp daje woon ci xolu iblis yéen ñëpp ngeen mel ni iblis yokkul sama ngóor misqaala zarra allah huwa alxani mooy ko woomle cant yëpp it moom dong moo ko yeyoo waaye it mooy ki nga xam ne jaamam bu jaaree fekk neex mu sant ko àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy sant te boole ñu ci ñi muy sant mi ngi noonu Cheikh Ousmane
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون barakallahu fikum suñu borom jalla waala mu ne walaqad arsalna rusulana bil bayyinat ñun day dëgg yónni nañu suñu yonent ci lay yu leer wa anzalna ma'ahumul kitaaba wal mizan ñu wàcc mu ànd ak ñoom téere ba ak la nga xam ne mooy peese ba li yaquuma annaasu bil qist ngir nit ñi taxaw ci maandute wa anzalna alxadida fihi ba'sun shadid ñun ñoo wàcce weñ mu nekk ca ay wutar wa manafi'u linnas waaye nekk ca ay njëriñ ñeel nit ñi wa liya'lama allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghayb ngir it yàlla xam kan moo koy dimbali moo ko ay yonentam ci kumpa inna allaha qawiyyun aziz sa borom yàlla day mooy borom kattan gu targa te it mooy ka not lépp jalla wa ala wa laqad arsalna nuuhan wa ibrahim ñun de ñoo yónni woon nuuh ak ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab def ca seen njaboot ga ñëw seen gannaaw lii di yonente ga ak téere ba fa minhum muhtad am na ca ñoo xam ne dañoo jub wa kathiru minhum fasiqun waaye lu bëri ci ñoom day dañoo génn topp mi ngi noonu mbokk wax naa la sànq ne ci piliers yi suñu diine ji lañ ca war a gëm juróom benn la bokk na ci juróom benn yooyu nga gëm ne yàlla daa yónni ay yonent yonent yooyu ki ci jëkkoon mooy yonent yàlla nuux ki ci mujjoon mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla waay waa Sénégal xam leen loolu xam leen ki mujj ci yonent yàlla yi mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujjeelu rasul mooy mujjeelu nebi te gëm leen ni it du dundaat di dekkiwaat di nekk ci beneen xeet bu dul ba ko yàlla di ko yónni abadan ñun ñoo yónni suñu yonent ci ay lay yu leer suñu borom bépp yonent bu mu yónni dana la jox ay lay yoo xam ne képp ko am xel xam ni liy jógewul lu dul ci yàlla man nga cee jël misaal rek ku mel ne yonent yàlla Muusa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti kawtéef bokk na ci yat boo xam ne bu ko sànnee mu nekk jaan piir mu téye ko mu nekk yat dóor na ko ci xeer mu ballu fukki bëti ndox ak ñaar dóor na ko ci géej géej ga xar ila axiri yonent yàlla Isa yàlla yónni na ko day dem ci ban dessin benn picc génn ko ëf ko mu soppilu ko picc dëgg naaw ñëpp di ko gis dem ci bàmmeel woo borom bàmmeel bu mu jóg taxaw mi ngi noonu lépp Isa ibn Maryam def na ko ci ay kawtéef doonte ne kawtéef yooyu yëpp lay kawtéefu kawtéef yi mooy téere bi ñu tiim moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ni bépp yonent yàlla jox na ko loo xam ne amul lu mel ne moom pour nit ñi gëm ko li ma yàlla jox mooy alquran ji ca ñoom ñépp man maay ëpp ku leen topp mooy alquran mooy kawteef bi sax ba ila yawmi diin isa lam doon def dañ ñu ko wax gëm nañ ko dëgg la Moussa yatam ya gisuñu ko alquran nag mi ngi fii di dëkk doomu aadama yi ba ila yawmi diin law ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al quran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira mboolem nit ak jinne mënuñu indi lu mel ne al quran borom boobu subhanahu wa taala ni nii la wàccee lay yooyu doonte ne yonent yooyu dañu leen di gëm waaye kenn rek lañ cay topp muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo tax yow ndawal julit doo dem mukk naan da ngay jël injil ancien testament ak nouveau testament naan loo loo cay xool laa wallahi kenn la ñuy topp mu yonent yàlla muhammad akub téeréem borom bi nee na wàcc na ci ñoom téere téere yooyu yépp ñoo bokk règle générale yi ñuy waxe te mooy kaay leen jaamu yàlla bañ ko bokkaa rek dara amma nag ci sharia yi moom ku nekk yàlla utal na ko shiraatan minhaja ci nu mu teqalee façon nañ koy defee waaye jubluwaay bu mag bi moom ñoo ko bokk mi ngi noonu borom bi it nee na moo wàcc misaan ngiree doomu aadama taxaw ci maandute ca mbokk téere yooyu lan la woote jëmee mooy nit ñi yemoo tooñ bañ a am looloo tax bu ñëwee day wax doomu aadama yi yéen ñëpp a bokk bàyyi aadama yéen ñëpp a bokk boroom yéen ñëpp a bokk daje yomal qiyaama kon yéen ñëpp a yem moo tax mboolem yeneen yi ñëw baadool yi ñoo jiitu ci ñoom ndax ñoom dañuy gis ne société bi daf leen tooñoon diine ji ñëw moom di redresser sa tooñ googe amma notable yi kaye woon jàpp na ñoom duñ moroomu nit ñi loolee arrangé wu leen moo tax dañ ko dañ ko daq mboolem yonent yi yàlla yónni min nuux ba dernier yonent borom bi danaan wa qaala al mala'u qaala al mala'u notable ya notable ya mbokk diine l'islam mooy diine maandute yonent bi alayhi salaam mu ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi doo mën a gëm lu dul li ngay bëggal say mbokk julit loolu ngay bëggal sa bopp wallahi bu ñëpp meloon ni àdduna jàmm rek ci am kenn bëggul ku ko tooñ ku nekk bëgg na ku ko respecté ku ne bëgg na ku ko jox cër ku koy teral noonu nga bëgg ñu defal la ko lu mel noonu bëggal ko say mbokk julit loolu mooy alxist donte ne xist bi jiitu ci xist yi mooy sa digganteeg sa boroom nga taxaw ci bil xist te mooy jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara bis boo bokkaaleeg sa boroom nekkatoo ci mandute jeng nga gën jaa màgg ci jeng boroom boobu it ne man maa wàcce weñ weñ googee ay yu bari nekk ci te mbokk nañu xam ne diine bu mu mën a doon bokk na lu koy dimbali mooy doole gannaaw yonent yàlla Muusa la suñu borom yàlla commencé faratal jihaad ci xeet yi looloo tax yonent yi ni ñuy waaraate ci téere noonu lañ doon wootee jihaad ba suñu borom yàlla dana soppi ci doole loo xam ne du ko soppi ci téereem mbokk yonent yi bu toogoon Madina rek di waaraate waaraate kese islam du yegg si fii de daa takk ndigam ànd ki sahabaam ñu jóg jihaad fi sabilillah di woo nit ñi di leen dugal ci lislaam ba da ngay gis loo xam ne tubaab bi dañ koy seede islam rek mooy benn diina boo xam ne dem na ci ay nit xeex ak waa dëkk ba waa dëkk ba sax gañe leen not leen ba pare wëlbatu ko bàyyi la ñu waroon topp leen ndax bokk islam heure buy jihaad jubluwaayam du rey nit wala sonal nit jubluwaaye mooy jottali kàddug yàlla jeex na loolee moo taxit ba bari na ay ndaw ñoo xamee ni nii dañuy def ay njuumte ca bari na lool rawatina trente ans yi ñu mujj a dund bi ñu créé ay mouvement yu dul jeex benn waay jóg rek taxaw ne dañuy jaayanteeg moom ñu jaayante ñu naa ci jihaad xoole liñ def Iraq xoole liñ def Syrie demal Yemen demal Afghanistan gannaaw at yu mujj yi ñu dugg Afrique demel Niger demel Tchad demel Nigeria ñaati ci ay innocent ay jullit yu nekk si ni jàkka la ñu rey ci turu jihad boobu mbokk loolu njuumte la suñu borom yàlla wàcce na weñ ngir xool ku koy dimbali waaye mbokk jihad bala balaa nekk lu yàlla gërëm buur bu islam bu jiite état moo koy woote ànd ki borom xam-xamam xam ne am na kattanu jihad fi sabilillah suñu demee ci yéeféer yi ñett lañ leen di woo jëmi kaay leen ñu bokk dugg ci diine jaamu yàlla bañ ko bokkaleeg dara suñu d'accord yi xayru suñu d'accordul ñu ne kon bàyyi leen ñu contrôler dëkk bi ngeen nekk ci li ngeen nekk bu ko defee ku bëgg dugg ci diine dund ci suñu bañee jihad dooga am waaye amul benn mbooloo jeune bu am droit naan dañuy jaayante kenn mu jiite leen ñu naan dañuy dem di rey ay yéeféer laa mbokk julit donte ne ni gannaaw jihaad boobee suñu borom mu ne manaafi'u linnaas weñ mi ngi nii lañ ca mën a jëlee ci li ñuy liggéeyee na doon illeer yaag ah simmiñ yaag rato yaag yeneen yi ñu dem ba oto yi ñëw ak avion yeeg bateau yeeg yépp da ngay gis ne liñ ciy génne kenn xamul nu mu toll loolee mbokk borom bi nag ne dama leen koo nattoo waaye yàlla moom mooy alqawi kenn dara tëwu ko ba mu naan ku muy dimbali ku dimbali diine yàlla ji sa bopp nga dimbali ndax yàlla mooy borom kàttan gi not lépp lii mooy la nga xamee ne nii jullit da koo war a xam borom bi nag yonent yooyu mu jël ca ñaar kenn ki mooy sunu maam ñun ñëpp mu yonent yàlla nuux xamal ne ñaari maam lañu am maam bu jëkk bi mooy aadama ñun ñëpp ci moom lañu sasoo ñaareelu maam bi mooy nuux ñun ñëpp ci moom la ñu sosoo tubaab ak anglais nit ku ñuul ak ñëpp nuux mooy suñu maam ñun ñëpp borom bi subhanahu wa taala nee na def na ci seen njaboot la nga xamee ne mooy ay yonent na am mboolem yonent yi ñëw gannaaw nuux ay doomi nuux lañu mboolem yonent yi ñëw gannaaw ibrahim ay doomi ibrahim lañu mi ngi noonu ñoom ñaar ñooy ña nga xam ne ñoo ko am ñoom ñaar rek ñoo am loolu mboolem yeneen yi ñëw seen gannaaw mi ngi noonu ay ay ay seeni doom lañu loolu it moo tax ba jullit it di war a bàyyi xel njabootam ee waay del ñaanal sa njaboot suñu borom mu ne ibaadu rahman mooy ñi nga xam ne dañ naan rabbana hëb lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wajalna lil muttaqina imama e yàlla yàlla ñu wërsëgal njaboot gi ñu wërsëgal suñu xol sedd ci ñoom nga def ñu nekk ay royukaay ñeel ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla waaye nag borom bi nee na li ñuy baax baax seen jabar googee am na ñu tege ci njub gañ indi woon waaye li bari ci ñoom dañoo génnuk topp loolu it mbokk mu ñuy woon erreur bu rëy bi am Sénégal am ci dëkk yu bari mooy li ñuy tudde xalifa ñu ne tey jii day Samba Thiam mooy borom xam-xam bu mag bi woote na ci diini mbooloo mi ñëw topp ko Samba Thiam dee na ñu ne dañuy jëm dem jëli doomam Aliou Thiam teg allu deene dañuy jëmi moor caam teg moor deene mbokk loolu mbir la boo xamee ne nii lu yàlla defalul ay yonentam ndax dana ko defalal suñ caam la wallahi su ko defee doomu aadama bi kenn du ko topp ci deret nit ki dañ koy topp ci xam-xamam ak ragal yàllaam waaye mbokk diina du lu ñuy donn nangu nañ ko ci mbiri àdduna waaye li ci borom xam-xam wax toujours amul kenn ci yéen ko nangu am benn médecin boo xamee ne nii moo koy suivre mu dee bàyyi doomi mécanicien nga dem ci mécanicien ba mu lay opérer kenn ci nanguwu ko loolee ko ñet ñoo xam ne doon doomu ko baax firiwul ne da ngaa war a baax waaye ñu baax ñi dañoo am ñu baax am ñu bon loolee mi ngi noonu yal na yàlla yéwénal ñu suñu njaboot mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون barakallahu fikum suñu borom mu ni wa qaffayna ala asaarihim non summa qaffayna ala asaarihim gannaaw ba lañ toftale ca seen jeexital ya ay ca seen gannaaw bi rusulina ci suñu yonent ya wa qaffayna bi isa bni maryam ñu daal di toftale ca ñoom kii di isa doomi maryam wa aataynaahu linjil jox ko téere boobee di injil wa jaalna fi qulubi allazina taba'uuhu daa di def ci xolu ña ko topp rafatan wa rahma lii di ak ñeewant akuk yërmande wara wa rahbaniyatan ibtada'uuha am amma amma dëddu àdduna moom ñoom ñoo ko sos maa katabnaaha alayhim farataaluñ ci ñoom mukk dëddug àdduna illa btigaa ridwanillah ñoom day ñoo ko sos ngiree ne dañ cay sàkku ngërëmal yàlla fa maa raawha xaqa riayatiha ba pare it ñoom sàmmuñu ko dëgg-dëgg nañ ko waroon a sàmmi fa aatayna alladina amanu minhum ajrahum noonu lañ joxe ña gëm ca ñoom seen payya wa kasiru minhum fasiqun donte ne la ëpp ci ñoom day dañoo génn topp mi ngi noonu mbokk yonent yooyee gis nañu ne suñu borom yàlla tegale na leen muy lu bari lool wax nañ ci ay lim yu bari am nañu ne ña ca am téere ndax xam ngeen rasul mooy ku indi téere amma nabi mooy koo xam ni dafay tënku ci sharia bi ko jiite bi ko jiitu mi ngi noonu kon suñu yonent ya yàlla teg na leen ci gannaaw nuux ak ibrahim ka ca mujjoon maa isa ibnu maryam isa mooy dernier yonent avant suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam seen diggante lu jóge juróom benn siècle dox na fi loo xam ne yàlla indiwul benn yonent ala fatratin min rusul bañ demee ba adduna mar soxla loolu yonent ca la nag suñu borom yàlla doog a indee dernier yonent muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam isa moomee yàlla joxoon ko téere bu ñuy wax injil muy téere boo xam ne dafa ñëw ngir redresser njuumte yu bari yañ dugaloon ca tawraat borom bi mu ne def naa ci xolu ña ko topp ñu am yërmande ak ñeewant ca mbokk isa ibnu maryam yàlla da ko yónni ci yahudi yahudi dëgëroon xol lool noggutante def lu bon la preuve mooy moom jàppoon nañ ko sax pour rey ko yàlla ko sauvé ba ñu rey keneen ci place am isa ñëw woote ci bëggante jàppante soppante daan wax ne bu la nit dabee tëgg la pes na nga ko jox beneen pes beneen lex bi na ko pesaatal ngiree jàmm am ñooñu ko toppoon kon am nañ yërmande waaye mbokk loolu safa noona ak chrétien yi ñëw gannaawam nga xam ne dañuy mbubboo isa ca topp ñu la isa nekkoon buñ la waxoon tey jii Espagne gii nga xam ne islam jiite na ko di siècle bañ demee ba chrétien yi daane leen ba not leen lañ fa doon def jullit ñi ëpp na nettali sax ci mbon te ay chrétien ñoo leen ko doon def loolee ñu bàyyi ci xel bu baax Occident gi 90 pour cent c'est des chrétiens ñoo fi créé première guerre mondiale deuxième guerre mondiale lépp luy musiba ci kaw suuf ñoo ko def amma ñu gëmoon Isa topp ko ñooñee borom bi yàlla mu ne def na seen xol ya yërmande ak ñeewant waaye nag demoon nañ ba ëppal ci seen diine daa di créé rëhbaaniya Isa biñ ko jàppee bëgg koo rey ba yàlla yëkkati ko labbe yi ko gëmoon dañoo daw tasaaroo ci àll bi ndax kuñ ci jàppoon rey la ñoo ñuy daw tasaaroo ci àll bi du dund dund gu wéetaay googu ba ñu demee seen taalib yi ñëw seen gannaaw jàpp ne loolee daal mooy li gën a baax te mooy dudd àdduna doo takk soxna doo am alal doo am dara loolee la ñu wax ne moom la ñuy def yàlla mu ne santuma leen woon loolu ñoom ñoo ko doon sàkkoo ngërëmal yàlla doonte doonte na wattu wuñ ko dëgg-dëgg wattu mbokk ak bari ci ñoom ñu ne duñu takk soxna ca sax sax ci njaaloo loo xam ne ñoom ñoo koy wax xoola rek nga xool internet bi nga xool la nga xamee ne nii ay labbe yoo xam ne ñii ay pédophile lañu ñii ay góor jigéen lañu ñii ay kenn xamul lañu yow yaa ngi bàyyi lu dagan li la yàlla daganal nga ne doo ko def ba pare dem di def lu xaram la li borom mu ne fa maa raawha xaqa riayatiha loolu suñu borom mi ngi wax ak ñun julit ay waay julit yemal ci li yàlla farataal yemal ci sunna yonente bi alei salatu wasalaam diine yàlla ji bu ci créé dara créé biddaa da lay yàqal sa diine looloo tax boo xoolee ñu fi créé ay biddaa jël ay mbooloo jàpp na mbooloo yi bokk ci moo lay gën a jegeel yàlla lan la jur mooy nit ñi dañoo dem ba ñooñu jiite mbooloo yi ñu teg leen ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéemale leen ak yàlla bu dee dëkk bu mel ne Sénégal dem nañ ba sax ñoom tiim yàlla am déet loolu la ñu gis looloo tax ba diine yàlla ji xam nga muy diine lan sami'na wa ata'na lan la yàlla wax lu yeneen ci yàlla wax ñu jëfe ko amma créé déedéet ibtada'uha fama ra'awha de de sos nañ ko yàqal na leen borom bi nag ne ña nga xam ne dañ caa gëmoon yemoon ca la yàlla santaane ñoom de jox naa leen seen fay waaye li ëpp ci ñoom dañoo génn nu topp jaar ci seen bànneex mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
jazakumullahu xayra suñu borom jalla waala mu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ittaqullaha wa aminu bi rasuli ragal leen yàlla ngeen gëm yonentam yu'tikum kiflayni min rahmati mu jox leen ñaari cër ci yërmandeem wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bi mu def ñel leen leer gu ngeen di doxe wa yaghfir lakum mu jéggal leen wallahu ghafurur rahim sa borom yàlla mooy kiy jéggale ki yërëmaate li alla ya'lama ahlul kitaab ay ngiri mu daal di xam ña jotoon téere ba alla yaqdiruuna ala shay'in min fadlillah na ñoom day amuñu benn kàttan ci ngëneelu yàlla wa anna al fadla bi yadillah ca li nga xam ne mooy gëneel day mi ngi ci loxoy yàlla yu'tihi man yasha moo koy jox ku ko soob ci ay jaamam wallahu dhul fadlil azim yàlla mooy borom gëneel yu màgg ya mi ngi noonu mbokk julit suñu borom mi ngi ñuy woo ay yéen julit ñi gëm ragal leen yàlla mbokk lan mooy ragal yàlla mooy li nga gëm xam ko nga jëfe ko aka bari tey ay jullit ñoo xam ne njaaloo xaram na ca bàyyi wuñu ko carte aram na bàyyi wuñu ko lekk alali alali jàmbur ci neen aram na ca bàyyi wuñu ko ay waay yow mi gëm ne lii daa xaram yàllaa ko aramal ragalal yàlla nga def ay ndigalam bàyyi ay tereem yow soxna si xam ne yàlla daa digle muuraay ragalal yàlla nga commencé muuru yow borom kër gi digal ko sa njaboot ay ragal leen yàlla ca gëm la nga xam ne mooy yonenti yàlla bi xam ne lépp lu mu wax dëgg la du wax lu dul lu ko yàlla subhanahu wa taala waxloo lii de bu ngeen ko defee borom bi mu ne ma jox leen ñaari cër ci sama yërmande ca mbokk julit da ngay gis ne suñu borom yàlla jalla wa ala daa faral xeetul islaam ndax tagg na leen nee na ñooy ngën ji xeet ba képp ku def ci ñoom lu baax dana ko may duubul pay la muy fay diine ya nga xam ne ñoo jiitu woon yeneen ci bàyyi salaam joxe ci misaal mu ne mi ngi mel ne rek benn waay bu ne woon kuy ñëw tabaxal ma fii waay ma fay ko journée mille francs ci ga ci ci ci explication am mbooloo mu ñëw liggéey ba tisbaar wàcc mu jox leen ku ne mille am ñu ñëw tisbaar takkusaan liggéey wàcc mu jox leen ku nekk mille am ñu ñëw tàkkusaan liggéey timis wàcc mu jox leen ku ne deux mille gaa yam fayoon mille ñoo ne waaw lu tax ñii ñoo ñu gën a néew liggéey ba pare nga fay leen deux mille mu ne ndax yéen dama leen a fay lu ma leen wurta fay ñu ne ko ah kay jox nga ñu suñu àq mu ne jox naa leen seen àq lii nag suma ngëneel la maa ko jox ko ma neex gis ngeen loolee mbokk moo tax yàlla faral ñu ci lu bari may ñu laylatul qadr may ñu jumaa ngi nii yàlla réeral xeet yi jubal ñu ci ila axiri danaa leen jox ñaari cër ci sama yërmaande ba pare may leen leer gu ngeen di doxee ca mbokk julit yow ndawal julit soo bëggee am xam-xamu diine ragalal yàlla fii ak yaa ngi xam fii ak li nga xam yaa ngi koy jëfe yàlla di la yokk sa xam-xam yàlla di leeral sa dënn ci mbiru àdduna amul kenn kuy ragal yàlla lu dul lépp lu mu dugg position ba mu cay jël du bokk ak ka ragalul yàlla ba tax borom bi mu ne awa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman masaluhu fi zulumaatin laysa bi xaarijin minha xoolal ki nga xam ne dañoo dundal xolam muy dugg ci nit ñi bu dee commerce ba lan la ci yàlla santaane étudia lu ci yàlla santaane damaa nekk ci tukki lu yàlla santaane sëy bi may sëy lu yàlla santaane samay surga yi ma yor lu yàlla santaane kookee dafa am leer gu yàlla dugal ci xolam leer googee mooy la nga xam ne moo koy gindi mooy nuuran tamshuuna bihi gannaaw ba it borom mu ne ma jéggal leen ca it mbokk jullit ñoo xam ne doomu aadama du malaaka doomu aadama fokk ngay def bakkaar waaye bokk na ci ragal yàlla da nga moytu bakkaar si kemtalal kattan bis boo tarxiisee nga def ko gaaw tuub képp koo xam ne ma nga sax ci bakkaar ragalul yàlla heure boo defee bakkaar gaaw tuub borom bi nag mu ne xam leen ne man may jéggalee ak bakkaar ba lu mu rëy rëy man may yërëmaate te ku yàlla yërëm dox sa digganteeg la nga xam ne mooy bakkaar ngal la waay sax leen ci lii ngir ña nga xam ne dañoo yoroon tii de téere jiitu leen muy yahudi ak nasaraan yi xam ne du ñu am benn kattan ci ngëneelu yàlla ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo ko jox ku ko neex te rawatina yahud yi jàpp ne yàlla kenn dong la jagleel ay ngëneelam muy yahud na ñoom déedéet kum mën a doon wolof njaago tukulóor américain chinois koo mën a doon boo gëmee yàlla jaar fa ko neex ngëneelu yàlla dana ñëw ci yow te it xam leen ne ngëneel ci loxo yàlla la nekk nga la waaye julit xam leen loolu ay yéen les politiciens ngëneel ci loxo yàlla la nekk de yàllay fal ku ko neex yéen ñi uti alal ngëneel ci loxo yàlla la nekk mooy wërsëgal ku ko neex yéen ndaw ñi nekk ci yoonu étude ngëneel ci yàlla lu ko neex mooy diplômé ku ko neex ila axiri ila axiri mboolem gënal ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko neex ci ay jaamam te yàlla ay ngëneelam ngëneel la yoo xam ne ngëneel yu màgg la jalla wa ala yal nañu jagleel ay ngëneelam adduna ak alaxira boole ñu jaamam yi ko gëm ca ragal ko moo may ñu aafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ab temps jagleel ko julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ca des nga jagleel ko ñaan ñeel la ak sa njaboot ak mbokk jullit yi loolu moom mooy la gën wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam lan mooy àttee jigéen bu sol kapp mbokk nañu xam ne kapp du suñu col kapp solu ñeneen la yal na yàlla yërëm suñuy mag ba aboubacar jabir aljazairi daana dem bay rëbb yal na yàlla rëbb ñu indi kap ci dëkk yonent yàlla muhammad ci madina mu waxoon ci lu yéeme nee na am na kap yu ñu doon jaay madina amérique la doon jógee ca madina la gënoon a yombe amérique gars yi loolu yéemu leen na waay ki jël kap bi transporté ko amérique ba madina di ko jaay lu gën a yomb mooy kon dañ koo def ngir détourner xelu jullit ñi xale bu jigéen bi ngeen dajal ci mbedd mu sol kap kooku fu ngeen koy féetale ndax mbokk da ngeen ko gis ci xale yu jigéen yi di muur ak yooyu ala kulli xaal même góor góor amoo droit di sol kap lu dul dafa nekk ci place liggéey nga ciy fege jant bi amma toilette kese sol kap déedéet kap colu ñeneen la loolee ñu bàyyi ci xel bu baax doo di jeeg mukk yéefar tubaab mu sol koppati bi ma sol am déet lu tax mooy xam nañ lii ñun ñoo ko moom ko nit seeni kap nañ leen ko fa bàyyee wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ndax nit ki mën na jàngalu kaamil loolu ñun xamuñu ko ci lislaam xamuñu ko ci sunna yonent bi ak ci sahabaam nga fay ay nit pour ñu jàngal la kaamil laa loolu xamuñu ko mbir la boo xam ne loolu dafa dab lislaam loolu ñu bàyyi ci xel bu baax lu bari li ñuy wax ci kaamil dafa dab lislaam yonent bi alayhi salaam musul gis kaamil kaamil ñi ngi ko dajale gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono Omar jamono Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dem nañ ba ay siècle yu bari dox na ñu bari ci ay jurit musuñu gis kaamil mi nga noonu ala kulli xaal nit ñi xewal nañu léegi bala ñoo ngénte wàcce kaamil dëj yi moom dama koo jëllali waaye tey ak a bari ay tudd yoo dem kaamil wàcce kaamil mooy tardé loolu suñu maam yi xamuñu ko woon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma nit ki toog di baamu suratu yaasin bu dee jubluwaay ba daal mooy jàng alquran loolee dañuy gis ne lu baax la amma nag bu dee dafa gëm ne baamu suratu yaasin nangam ci ab lim dafa am ngëñal bu cay nekk loolu moom saxlu ci sunna loolu moom saxlu ci sunna amma bu dee rey gàtt sarxe bu ko defee ngir yàlla rek a tax day loole ci tuyaaba yee gën a rëy la bokk mooy dem jënd gàtt rey ko xool miskin yu ko yeewu nga sarax leen ko loolee moom da ngay gis ne ci tuyaaba yee gën a rëy la bokk mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daana rey ab gàtt pour ne ñu bàyyi ci xel dëkkandoo yi bañ reyee benn gàtt ñu ñëw yonent mu ne Aysa lu fi des mu ne lépp da joxe nañ ko ba mu des ci gennuk faar mu ne neel lépp des na fi ba mu des gennuk faar ca mooy kon loolee nga rey sarax ko ñu ko yeeyoo loole lu lay xaar la yowmal qiyaama mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam wa ma asaabaka min sayyi'atin fa min nafsika loolee mooy yow doomu aadama yaa ko sabab yàlla mooy indi bépp nattu waaye nattu yi doomu aadama bi ñoo ko sabab looloo tax borom bi subhanahu wa taala nag yonente bi alei salatu wasalaam loola dal ci ay nattu xamal ni loolee mi ngi jóge ci sa bakkan zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas mboolem déréglement bu am ci climat bi am ci géej gi am ci feebaru corona yi yépp doomu aadama yi ñoo ko sabab jullitit heure boo xamee ne nii am na ay njuumte yoo xam ne def na ko suñu borom yàlla bokk na ne muy fare ay bakkaaram yenn nattu ya muy teg ci kawam natt yooyu bu ñëwee day fóot ay bakkaaram yëkkati ay darajaam ca wax naa la ne nat bakkaar kenn mënu cee mucc du yonent du ku dul yonent xanaa kay yonent yi ñoom mucc nañ ci kabair ya amma keneen ku dul yonent bàkkaar kenn mënu ci mucc looloo tax borom bi subhanahu wa taala ne ma asabaka min hasanatin fa min allah xéewal yépp ngëneelu yàlla la amma lu la dal ci ay nattu loolee mi nga jóge ci sa bakkan looloo tax ba julit moom heure boo xamee ne nii nattu dal na ci moom dafay dellu ci yàlla tuubaat dellu ci yàlla gannaaw ba gëm na it ne yàlla dafa def lii ngir laabal ko ngir yëkkati ay darajaam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah dafay liggéey hôpital moo am urgence dañuy xool urgence ba urgence lan la su dee ne dafay nekk urgence koo xam ne buñ ko assisté wul day dee su boobaa da ngay gis ne doomu aadama bi am nga ngantu ci retardé la nga xamee ne ni muy julli googee retardé ba it du nekk bàyyi ko ba waxtu wa passé bu doon te ne ne waa ji dafa nekk même salle d'opération ca xam ne ne moom mën na boole di taxaw di julli ngiree waxtu bi bañ koo raw islam da koy sant mu taxaw di julli xoolal ñi nekk toolu jihaad suñu borom yàlla mu ne fa in fa in xiftum fa rijalan aw rukbaana su ngeen demee bay jihaad roofaloo ak noon yi ngeen dem ba masalan jant baa ngi waaj a so ngeen julliwu leen takkusaan mu ne julli leen seen kaw tànk yi loolee daal kon loolu la médecin bi war a def lu dul nag mu yegg ci xaal boo xam ne wóoru na ne ni lii daal su ma ko def su ma ko jéemee defit danaa doon malade bi dana des samay loxo su boobaa loolee moom dana doon ngant boo xam ne dañ ko ko may mu sauver bakkan bi ngiree fàdd waxtu wi sauver bakkan moo gën a nekk priorité ci faat benn waxtu boo xam ne da nga ko mën a fay wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam ala kulli xawal mbokk julit ñu ngi doyloo loolu di ñaan lépp lu ca jub yal nañu yàlla wërsëgal ñu jëfe ko lu cay njuum te yàlla xamal ñu ko ca wërsëgal ñu ñu fa dëgg ga nekk ñu toppi ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain